asalaamaaleykum internet Senego TV ak kawteef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay 143e édition appelu Seydina Limamou Laye ni ngeen seetaanee ci suba ba tey li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ñu leen defal en live fii ci Yoff Layeen ba tey it ci yor yoor bi tey ci li nga xam ne moom lañ koy ndar keppee dañuy ñëw gis ñi nga xam ne ay acteurs lañ wante nekk ci njabootu Seydina Limamou Laye kenn ki nga xam ne nag moom lañ fi toogal tey seet si ko xàmmee ngeen ko borom karma la wante nag profil bi dina bett ñu bëri ndaxte ñu bëri it du ñuy gis muy fësal li nga xam ne ci communauté boobu la bokk Abdou kebe Karma ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen nuyu waa Sénégal ma leen wax laay laay laay Maxtaar <laughs> waaye di leen euh, jaajëfal parce que lu metti la appel nga ñëw fii di wër nit ki pour ba gis koo toog ak moom. waaw même boo bëggee ñëwul sax man man maay ñëw <laughs> ñu lay remercier bu baax aussi ci disponibilité bi parce que tey journée bi c'était trop chargé ak invité yi d'autant plus que c'était pas du tout évident ak visite yaag yi ñu doon def yëpp ci jourer appel bi malgré tout euh, nangul nga ñu interview bi malgré que temps bi xat na ñun tamit lool dañ la ciy sant di la gërëm di la remercier ak patience bi nag xaarloo nañ la ba sonn ab ñu ngi jéggalu bu baax baax ñu ñëw rek déjà ci appel bi tey nan nga ko dundee mbégte ak euh, xol bu sedd parce que ku nekk xam na ne Seydina Limaamu alayhi salaam dafa woote ajiboo daay laahi dana ajiboo daay laahi yaa man saxal insi wal jinni indi rasulullah ilaykum yàlla yàllaa mu yónni si nit ak jinne kon tey jii nii man mi nga xam ne layan la même ku dul sa sax dafa war dem wuy ji parce que mbégte ay mbégte rek la parce que doon na loo xamante ni boo si demee dëgg di nga xam ne dëgg lii du ay caaxaan waaw man nag ku nekk xam ne ne man laayeen laa malgré Abou Kébé moom dafa ko doy waar mais diine ji moom bu taxawee moom dama si dem ba jeex tàkk parce que moom laa am waaw am na solo dinañ dugg ci Abdou Kébé mais dañuy njëkkee rek li nga xam ne mooy appel bi ak li nga xam ne message yu wàcc ci appel bi ndaxte ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yor communauté Layène génne nañ ay appel yu am solo ci seen discours wax nañ mbirum jàmm wax nañ aussi mbirum stabilité yéen ngeen nekk ay porteurs de voix nekk ay acteur xale yi di leen di suivre tey message boobu nan ngeen koy fas yéene véhiculer nga ngir askan wi mun leen a dégg Euh, thème boobu noonu bi bi ma ko njëkkee dégg semaine passé dama si kontaan parce que Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dëkku lislaam la soo xoolee maam El Hadj Malick Serigne Touba Mame Baye Niass Seydina Limamou boo xoolee kenn ku nekk dafa am dafa am côté bu mu féete dañoo encadré kon Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar tey jii peut-être dañ siy doog a wax rek mais loo xamante luñ bëggoon la bu yàgg. fii rek lañ ko mënoon a jaarale appel ñëpp koy seetaan ñëpp koy déglu fii rek lañ ko mënoon a jaarale ñëpp déglu ñu wax carrément jàmm bi war a am ci Sénégal parce que benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal bu jaxasoo rek ay nit a ko jaxase du kenn moo ko jaxasa waaw jàmm ji xam nga Sénégal moom ku ko xam ku ko xam-xam ne dëkku dëkku jàmm la te ñoom dañoo yéex a wax sax si message bi nii parce que fii rek dañ ko mënoon a jaarale pour ñu mën see wax. waaw parce que xam nañ ne appel ñëppay toog di ko seetaan ñëppay toog di ko déglu foofu lañ mën a profité pour mën a wax si message boobu noonu Sénégal tey bu yàqoo rek ñun ñoo ko yàq du kenn moo ko yàq ñun ñoo ko yàq bu ñu booloo woon doon benn di jàppalante peut-être boobaa jàmm mooy am mais ku nekk day jëm xëcc sa côté am loo wane bu ko defee ñi faral ñii xeex ñi faral ke xeex jàmm mënul am mënul am bu ñu booloo woon rek billahi Sénégal neex parce que boo xoolee ki kilifa yu baax yi yu fi nekk ay maam El Hadj Malick Serigne Touba ah maam Baye Niass Seydina Limamou ah loolu rek jàmm jàmm rek loolu rek jàmm la ñoom ku dégg seen histoire ñoom ni ñu meloon ni ñu booloo doon benn nga topp leen ba gëstu ba xam di nga xam ne carrément Sénégal jàmm rek fi war a am waaw nañu tàppi xol yi booloo doon benn loolu laay am lu ma wax si loolu. am na solo jàmm boobu ñu ngi koy ñaan ñun tamit pour la stabilité du pays ndaxte jàmm rek ci la lépp xaj ba tey ci appel bi est-ce que mun nga ñoo wax benn anecdote ci année boo passé appel bi mu marqué la bu baax soit mu nekk en famille wala mu nekk yow wala nga nekk tout na waaw surtout bu tey bi bu tey bi dafa marqué parce que dafa am sama ay xarit yoo xamante ni man ak ñoom dañ yàgg Cambérène lañ dëkk dañoo ñu ngi fi depuis deux mille euh, deux mille sept tey man ak ñoom ñu ñoo yendu tey appel te appel bu mujj man ñoom ñoo nekkoon tey ñu nekkaat lu ma gëj a def ma def ko fu ma gëj a dugg ma dugg fa ndax ñoom tey ma ñëwaat fekk say tamit sama famille ñoom tamit invité ay invité adduna bi yëpp ñu ñëw ma ñëw mbégte boobu tey dama lii moom yàlla na sax quoi yàlla na sax parce que tey moom sama xool dafa sedd si appel bi waaw dafa sedd trop sax. appel da fekk heure bi maa ngi tax rib tax si dama naan non dama naan liggéey si appel bi dama naan nekk kër Ibou Sini Thiaw di liggéey mais ren moom xam naa ne moom dama koy jégalu rek dina ma baal ren moom dama ne moom ren damay sol yër bu weex dem yor yoru jàmmalaay parce que depuis mille 2011 2009 laa fa gëjoon année bi Serif di mujjee def appel si laa fi gëj ba léegi kon tey jii ma ne tey moom foog ma dem xool appel bi parce que li ma dégg si message bi foog ma dem toog ma déglu ko sama bopp waaw. justement ci yor-yor boobu qu'est-ce que ça représente chez parce que dañuy gis laay ni dañ ko respecté muy góor muy jigéen muy xale yor-yor bi ñoom ñëpp dañuy sol seen yére yu weex ñëw di déglu. waaw mooy jour bi si seen alimaam woote woon ajiboo daay laahi jour boobu la woote woon même heure boobu net la woote woon muy lan diggante euh, kañ diggante ay 11 heures jàpp ay midi ci la taxawoon dëgg tànkam ba sa ne ajiboo daay laahi yàmman saxal insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum mooy yàllaa ma yónni si nit ak jinne maanaam bàyyiwul kenn tiijaan xaadir laayeen ñaseen ñëpp jinne ñëpp la woo parce que yàlla dafa bind nit bind jinne tey laayeen am na tiijaan am na xaadir am na mais ñu ñëpp benn lañu moom mu ñëw bëgg boole loolu lépp wane ñu ñëpp si yoonu yàlla lañ jëm tax mu woote ajiboo daaya laaxi yaa man saxal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum moo nekkoon eh, moo nekkoon yonente ba Seydina Mohamed dama koy wax moo nekkoon yonente ba sa Makka moo ñëw doon fii tey Seydina Limaam doon al mahdiyu waaw moo waral tey mu woote ajiboo daaya laay boobu di boobu appel ba ba mu ko defee ba tey delluwul ginnaaw ndaxte ba mu rëndalee géej dëkk def li nga xam ne mooy ay jullikaay nit ñi di ko di ko wuyu si at bu ne tey ñu gis nouvelle tendance ci réseaux sociaux yi di insulter wala sax di bañ boobu boobule appel est-ce que tey ñi waroon wax ñoo war a wax wala yi doonul exagération hmm. non ñu ngi wax ñu ngi wax de gars yi ñoo nangul gëm gars yi ñoo nangul gëm ñu ngi wax yéen randal géej rek ngeen xam si Seydina Limaamu am na yeneen kéemtaan yu mu def yoo xamante ni moo raw randal géej Seydina Limaamu daawul dox ba tànk di marqué si suuf jour ba muy taxaw di woote ajiboo daay lay si la dëgg sa xeer ba sa ngor di woote ajiboo mu mel ni dañoo branché si àdduna bi ay micro fu waay tool da koy dégg waaw pour rek pour rek yeewi jaam yeewi jaam ñi quoi noonu la demee waaw mais woowul laayeen rek nit ak jinne la woo waaw tey nit ñi nit ñu ñoo ñoo nanguwul gëm rek mais loo xamante ni ay tay la ñu ngi si cent quarante troisième ah? lu lu dëgg lu lu dëgg yàgg te koo xamante ni ma si taatu taatu géej tey li muy woote bu amul woon tey jii géej gi lekk na ko bu yàgg am na ay kër yu nekk si wetam yu bari yoo xamante ni géej gi yu yóbbu na leen tey taaxam boobu nga xam ne mu ngi noonu weex tal doo gis mu tilim doo gis mu def dara boo fa duggee mu sedd guy nga war a xam ne ki yàllaa ko yónni ah ma de gëm naa ko ba topp naa ko dem naa ba gëstu ko ba xam waaw dëgg la muy murit muy tijaan gëm nañ ko ndaxte lu toll ci téeméeru at ak ñeent fukk ak ñett muy 143e édition pour ñu déggul li nga xam ne mooy nasaraan ñu farañ fàcceel leen ko ba tey appel ba di continuer bu doonu toll li nga xam ne dëgg moo ko war moo ko lal wala it mbirum yàlla rek euh, kon am na recul kon dañ koy gëm dañ ko dëgg ndaxte dangay gis ci appel bi communauté murit tiijaan ñëpp dañuy ñëw du am benn. Euh, am na te fi ma nekkoon amoon ay murit yu fa ñëwoon dañoo demoon si yor yor ba parce que moo lay leen na carrément euh, Sénégal mi ngi waaj a neex waaw parce que ñu ngi waaj a doon benn waaw du nit moo tax ma ne la ñi xam dëgg dëgg dëgg ñi xam dëgg dañ saa bu appel jotee dañuy ñëw ku jàng dëgg di nga di nga appel bu jotee di nga bàyyi lépp ñëw malgré nit ku nekk am na fi muy nekk fi muy féete nit ku nekk am na fi muy mais du du tey yow di nga gëm li nga gëm xam li nga xam mais yaa nga fa nga féete ba tey am na ñoo xam ne noonu lañ mel waaw am naa fi benn rakk boo xam ne ñun ñëpp ay laayal la ñuy ti mais moom murit la mais moom weddiwul quoi <laughs> est-ce que demaloon tey appel ba sax <laughs> <laughs> waaw. ñu rek jógee ci ki nga xam ne mooy waaye Martin ak Abou Kébé Martin. Martin Martin bi moom surnom la sama tur dëgg na Alioune la. Alioune dara waaw Abou Kébé ak Martin ak Alioune bokkuñu sax abu kebe man sax dama ko jéppi <laughs> nii Abou Kébé dafa dem dafa doy waar Abou damay toog man ma xool ko seetaan ko bi jéppi ko ne kii nekkul man parce que su ma ko joué dafa mel dafa am luñ may sol wallaay du ma ko tey. dafa bëri. bëri mais du ko tey du ko tey parce que tamit nit mënul jël xaalisam fay la ko nga si ak moom contrat. kon boog léegi si ñëw moom ak contrat bu boo bañee àq mu dalal si bi nga am si benn àq di defal liñ la sant ba mat sëkk. c'est que loolu dañoo bind seen scénario jox ma ko ne ma Abou Kébé nii la war a mel nii la war a joué nii la war a def Virginie dama koy def parce que maa ko accepté mais xam naa man au fond li nekk sama biir xol xam naa ko xam naa ni ma mel xam naa man nit ki ma doon tey damay joué damay dem tournage ba pare sax ñëw toog sama kër sama xol naxari parce que ba Virginie dama koy woo ne ko mbaa tey amul dara lu mën a def lu lay gaañ mu ma non ma ko wax ma xam naa ne yow da ngay joué ba doo taf kii mu ne ma non non defoo ma dara ma ne ok parce que ni ma ko dafa metti damay joué damay mel day mel ni dëggantaan waaw mais sant yàlla rek am na ñoo xam ne xam nañ ma xam nañ ne man melu ma noonu waaw. deuxième deuxième saison bi aussi Abdou Kébé ñu ngi doon xaar ci épisode yi des moom ak Bathie Massamba seen seen affrontement mais dañu Abou Kébé euh, personnage am dañ ko gaaw euh, kii gisatuñ ko en fait. waaw personnage abu fan la fan la mën a yem Abou tooxi dund yi mu def yëpp Abou mënu woon nit ku nit ku bëri ay lu muy def di def di rey nit di def ay affaire du gudd fan. du gudd fan te dama te dama Abou Kébé dafa doon koo xamante ni mënul ñëwaat di tegaat lu mel noonu Virginie Virginie foog mu dund te bàcc ma sàmb ku nekk xam na ne. moom lu baax lu la doon wut si diggante abu Kébé ak ak tey abu kebe ñëw na nekk nit koo xamante ni kenn xamul fu mu jëlee ay oto nekk nit koo ay jamaa ay jamaa lépp ay xaalis jëm bay jugal suufu lalam xaalis xam ne kooku moos du nit ku jub bàcc masaama ni ko baax la mu ñëw bëgg dimbali ñi nga xam ne maa leen doon def lu bon lool noonu tax kat ah man après dem naa ba xalaat ne man li ma doon def nii teguma ko fenn jël naa pistolet dóor naa sama bopp dee naa foofu la yem ko scénario bi foofu la mën a yem ñoom ñoo ko bind foofu la scénario bi yem ñu bari dañoo fonde dañ ma génne si film bi non non génne ma si film bi euh, personnage Abou Kébé foofu fa la yem bañu ñu bindee ne Abou Kébé day dee première saison ba la woon am na solo ba tey ci personnage yi ah, ci profil yi du moins ñëw nañ ci profilu Seydina Aliou ci appel ñëw nañ ci Martin def transition Karma ñëw ci Abou Kébé beneen profil Abou styliste tey. styliste moom nga bëgg. waaw waaw waaw ah moom ñëpp xam nañ ko waaw man ko nekkoon naa man ka nekkoon naa ko ba tey nii sax du ma ne nekkuma parce que maa def ay pose photo maa ngi def ay pose photo maa ngi koy def mais podium bi moom laa xam ne wàññi naa ko parce que temps yi ma toll temps maa ngi mel ni mbër <laughs> waaw mais nag mais am na ñaar yu am na yu commencé yu pré yu ñuy préparé yoo xamante ni man maa ngi si biir waaw gars yi moom boobu moom nee nañ ma foog nga ñëw yeggaat si podium bi <laughs> incha allah. ban casquette la internet yi xamul ci eh, Seydina. ban ban casquette lañ xamul. man def naa lu ne de def naa lu ne. jaay nga ndox. menuisier sax def def naa menuisier <laughs> waaw xaama ñëw xaama ñëw def naa def naa kii tailleur def naa maçon man manœuvre yëge naa manœuvre. léegi maçon ñaata jour nga ko def. waaye yow def naa si une semaine li si benn genre six mille après demaat sama yoon quoi affaire yooyu yaay fàttaliku amatul sax léegi. mooy dinaa jàpp di xëcc nii di yëgal suuf si nii waa nu mu tudd poli poli poli poli ba sonn sama loxo yi wow koŋ yaa menuisier bi dama daan yanu bant ba sama bopp bi fii boo xoolee fii dafa def benn ronron liggéey naa fasuut ñu suñu famille ku ñu xam-xam ne si fasuut lañu la ñu màggee si la ñu ki nekk mi sama frère rek ñëpp mbay maa ngi koy nuyu au passage waaw moo ma moo ma jàngal ba mu jógee stade bi jógee si mënut bi moo ma ko jàngal ba tey nii nii nii tey boo ma ma taxaw si palaagu fast food nga ne waaw. c'est intéressant parce que tey doo gis nit rek euh, nga gis ko ci benn profil euh, foog ne tout est rose parce que ku ci nekk aussi am nga parcours c'est intéressant que parcours yooyu ñu koy rappeler surtout jeunes yi ñuy xam Nimz mi ngi lay tooñ naan la uti woon Maroc. fan Maroc liggéey moom fa yóbbu de ay waa jëla Sénégal te yàlla. man daal bu jeex ma bëgg a noppalaku ma dem noppalaku ci jeex na far yàlla ma dem am fa benn genre xam rek ñu woo ma benn genre nan laa ko expliquer euh, benn benn kii documentaire bu war a am foofu ñu ma dem pour xool ak ñoom contrat beeg yooyu noonu mais yàlla def na ne yàlla def na ne mooy loolu ma ñëwaat Sénégal. ki euh, na wax loolu ah. <laughs> ak appel bi. ak appel bi appel Seydina Limaamu bi génn ma ci man dama respecté sama sama job quoi job moo ma fa yóbbu liggéey ma fa yóbbu dem naa liggéey naa wàcc naa dem naa sama kër xooluma fa bëtu ken bëtu nobel man ñu ngi may fay waaw li ma wax ñoom signé ko si contrat ñi moo koy fay ba mat sëkk xaw ma nag keneen nag luñ koy fay ak luñ ko dul fay man sama bopp moom ma intéressé nag ku nekk ak sa contrat mais célibataire bi moom ñëpp a ko xam man su ma nekkoon marié su ma nekkoon homme marié di di sa xam dara waaye célibataire laa ba bu ko yàlla ñaan naa ko tey si appel bi yàlla na ma ko yàlla may si biir deux mille vingt trois bi. <laughs> doo ma jàpp de <laughs> li nga xam naa ko. waaw waaw moom laajte na la célibat mais xam nga célibat jamono ji fi ñu toll nag kii euh, Seydina parce que damay génn ci Abou Kébé damay génn mais mais célibat la parce que man mii célibataire VIP laa. dire mooy lan comprendre. non président des célibataires mais ah mais tamit nag. célibataire la waaye kilifa laa de <laughs> damaa nekk célibataire rek waaye kilifa laa moom waaw di xaar ki ma yàlla di booleel ma nekk ak moom waaw yàkkamtiwuma dara. <laughs> ça a plaisir dafa am leneen looy wax internet yi sa fan yi nga xam ne ñu ngi lay suivre à travers Sénégo ak Kawtef. waaw waa Sénégo ah, ñoom maa ngi leen di sant ñoom ñëpp cameraman moom xam naa ko bu yàgg. <laughs> <laughs> xam naa ko bu yàgg mais nekk na ay nit ak ay nit ñoo xamante ni vraiment dama naw seen job ko seen liggéey parce que lépp luñ lay laaj dañ koy dañ koy teg si yoon di ñëw di di déraper di di dem si beneen dugg si beneen yoon boo xamante ni war war ñu si dugg parce que ñàkkuma fayda tey ku ma waroon ku ma laajoon lu ma warta laaj du ma la sax faale dama la laaj carrément li laaj bu ma ko laaj def na am na ñeneen ñu ma ko def ñoo xamante ni dama leen ne non bu lay ma laaj loolu ne caméraman bi coupé ba mu coupé ma ne ko bul ma laaj loolu am na yoon yoo xamante ni sama vie privée la quoi tu comprends noonu laa la demee ma mais nag sama yaay dama koy gërëm ah, parce que sama yaay waaw parce que lépp moom la lépp moom la dew mu si sëriñ sanguwuma takkuma naanuma lépp ay ñaanam la lépp ay ñaanam la yàlla na ma ko fi bàyyi ba si kanam ak kanam kanam parce que xam naa fi mu toll si man te xam naa tànk bi ñu taxawoo ñun ay njabootam ñu ñëpp ñun ñu taxawoo ñun ñëpp ay njabootam waaw moo tax ragalu ma dara waaw maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax te di ñaan ñëpp ñu ñu tàllalal ma loxo di ma ñaanal sama yaay sama yaay di ma gën a moom dafa nekk yaay ju dal. yaay joo xamante ni parfois damay toog ne parce que est yu mel ni am na tey sama ay gorom yi sëy si biir kër gi ñoo ko gënal ay doomam fuuf ay gorom yi sëy si biir kër gi ñoo gënal ay doomam fuuf tey jii doomam doomam ak ak jabaru ak ay jabaram buñ doon buñ doon xuloo wala ñu def jàppante seen jabar lay jàppale parce que daf leen wax lu leer ñii dañoo bàyyi seen kenn yaay di di ñëw ñëw fii sëy si kon tey man maay seen yaay yéen ëllëg da ngeen di génn te man man ak ñoom fi des mu doon loo xamante ni daf may marqué si moom à chaque fois mu koy wax à chaque fois mu koy wax waaw yaayu exemplaire la ko vraiment waaw man moom dama ko dama ko bëgg ba dama ko bëgg ba wallahi enzum da dëkkuma si kër gi dëkkuma ak moom de mais mënu maa toog jour bu journée bu ma ñëwul si biir kër gi xool ko te man ak moom may toog ba mu tëddi ma dem ñibbi parce que dafa xam naa fi ma féete xam naa li mu def si man sama yenn si moom lan la sama soon buy génn si buntu kër gi sax dama koy dama koy fob wala ma yëkkati ko sama yaay tànk dunduma dunduma man samay mag mën nañ ko de ñoom ñëpp mën nañ ko ku si nekk mën na ko te ku si nekk yeneen na ko mais man ñaan naa yàlla balaa may am lu ma balaa may gën a am lu ma neex ma ne ko yaa oto bi yaa ko moom sa sa ngi nii saa booy dem sa sa chauffeur ñëw yóbbu la te am na lu mu bëgg nag Fès rek la bëgg dem te incha allahu rabbi ñaan naa yàlla yàlla na ma yàlla may lu ma ko yóbbu Fès chaque jour mu wax ma ko mais yàlla na ma ko yàlla may balaa koor gi ma ànd moom Fès incha allah. yàlla dina ko def boo leen ñëwee nag incha allah Sénégal mooy couvrir direct. waaw Sénégal waaw Sénégal moom mën nañ Sénégal moom mën nañ am mën nañ am lu bari si man parce que seen seen kii neex nañ ma pare yow da nga da nga dal macha allah vraiment nit ko dal nga nit koo xamante ni xam nga ni ngay waxee sa comportement sa va mën nga dem sax si Macky Sall wax wax ak moom da lay déglu <laughs> parce que ni ngay waxee macha allah waaye ma leen sant di leen gërëm di leen wax ne yàlla na yàlla def ko télé bu ngande xaw ma seen directeur bu mu tudd nag mais maa ngi leen di ñaanal ah. Sidi Mbacke xaw ma ko mosuma ko gis mais maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal te tele boo xamante ni mooy gën a rëy si àdduna bi si naa Seydina Ali maamu borom appel bii borom aju boobi maa leen di sant di leen gërëm jërëjëf kontaan naa